na moytu ay déplacement latéral la koy may déplacement latéral bi yàgg yàgg day ñëw ci garde gi chargé ko ay coup dëgg la bu ñëwee ci garde gi ndax Bébé Diène dina ko tër Bébé Diène lii avantage waaw mun na xanteeg amaneex waaw ba ne arrière ba jàpp amaneex wala ko sol ko dëgg la bu ko solee waaw jël loxoom sol ko uh-huh. loxo amaneex féete ci kaw waaw avantage bu Bébé Diène dugg nañ ci ah, ci saa bu Bébé Diène jàppee ndem uh-huh. dugg nañ ci avantage bu Bébé Diène dëgg la waaye saa bu amaneex jaxasee xeex ak moom waaw dugg nañ ci avantage amaneex waaw saa bu amaneex defee déplacement latéral. ba këf ko. ah ay su kese la su kese la ñàkk door. du yàgg de door. daan na ko daan na ko. daan na ko waay daan na ko. daan na ko jëriñ rëy. daan na ko jëriñ rëy la. daan na ko jëriñ rëy la. am na neex bi. daan na ko jëriñ rëy la. Lewandowski. ay mbër lañ mais Tembe day suul maa ngi leen di dañ dese xam ne parce que Serigne la Mouhamed di lépp lu ñu def boo defee seen bopp di leen bëri di leen maa ngi sant bu baax bu damay ñaan ko bàyyi ci def ñëpp kàmm gi mii nekk si club bi damay ñaan yàlla nekk mu def leneen bi ñu gëm ñu teg ko doon toog ñu ñoom lañ gëm. mais ñooñu dañoo leen doon jox seen am solo. te léegi ñetti écurie ñoo fa nekk. écurie tàggu ñëpp mobilisé écurie ñoo fa nekk ñëpp mobilisé. non nañ bàyyi seetaan bi nañ bàyyi seetaan bi. ñoom ñoo jël ñu ñibbi Guinée. bilaay wala talaay xam nga. moo doon moo doon moo doon. saa yaakaar yaakaar. parce que yaara suñu laay doon. moo doon giri doon giri doon. bilaay wala wala. Bébé Diène noo ko jantal kii amul loolu. ñoo ngi doon di ziar. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw mais du du ñu benn. na lambala la boo xoolee amoon fu mu jaar. ñooñu ñëpp ñu respecté la. mais tey li jaadu rek moo am. amoon nañu xam nga tey ay coono yu mënul dëkk si carrière donc lii rek a doon. coono yi mu ngi daj ci carrière am c'est-à-dire. li mu liggéey ci combat bi wallaahi asim mosu ko liggéey ama neex dañ daan liggéey ba muy bu paree sax si biir day bàyyi bëri ndax ay coono yu met wallaahi asim non li bett ñu parce que dama daj ay coono yu bëree bëree bëri bëri man xamoon naa ne ama neex tey moo gënoon bëri bi bi jën te li jaadu rek moo am boo xoolee ama neex fi mu ama neex mu nekk bëgg a suul rek ay defeetam ñi nga gis bëriwul non waaw mais dama ne cest ama ne da ngaa gën pare moo ko ëpp doole si lépp non de nu ñu benn boo xoolee ñaari bëri nga xam ne duñu benn. xam ne 2018 la gëj a ñëw ay moromam ñoo ko jëlul rek nga xam ne saa bu ñëwee am ndam. kon maanaam li gars di wax a bëre daa loolu ah non mais ñun ay nit géej lañ bu ñu ñëwee bu ñu ñëwul yëpp ñoo ngi bëre si géej gi loolu si dara. xam nga li ne ay moromam jël rek. ñun ak ñi si biir jafewul jafewul de wallaahi ak biir jafewul waaye non loolu dafa ñun am na xew mu ne bu ñu ñëwee gérer dañu war a gérer rek di ko ñaanal jàmm di ñaanal sama xam nga. am ngeen def ba bés ba waaw am nañ le 26 war a ñëw fii rek. waaw loolu fii ba mu yëngu. jéeg bi jafewul. ko miin ngeen fi ma ne miin ngeen fi yéen ñëpp. non a dem amane génne ko mu génn ñu ngi xeex ak sa mais sant yàlla rek moom champion la vraiment. lii lii lii lii da moom Bébé ko yegg fu sori ko daan mais li may wax rek war a daan mais a maam euh, mais Amaneex ko woon sax boo gisee da benn bennal da ko benn bennal xam nga dañoo bëri mu sànni ay ñu weccoo comprendre nga

waaw sant yàlla nag xam naa yàlla am na lu ñu denc lu dàq lii yàlla na yem fii nag ñi ñi ñuy ba bay jëm yàlla sax ma def loolu tëgg dinañ tax defaraat bu baax yaa ci lam incha allah su ma mbedd bi yore bëri su ma mbedd bi ci koy mbedd moom man awul may lu xam ne xam na laabu suba bi lu mu koy jaral ak fu mu koy yóbbu mu ko jëm mais ama ne xam na ne dafa dafa jën kay rek delluwaat ko day leer jën dinañu fayu incha allah dañu bëgg jën jël ama ne mooy yoon mooy yoon ne xam nga booy bi su dëggoon liñ ko wax rek lu toog ci tànk yi dir jàppante ak moom lamb yi jeex na bu yàgg bu sax xeet yoonu xeex est-ce que expérience fay defee dama neex ci expérience am bëri boobu booy dama juum rek ama ne ñëpp xam nañ ne bëree day déplacé wu yoonu ñëpp xam nañ fu mu loolu moo waral teeroo topp tànn du ko du topp ci lenn topp xaar ko mu ñëw mu jàpp ko def daan ko jël bu gaaw xam nga ne xam nga ne tànn bi dara yaakaar ko woon jël bi nii nga ne yaakaaru ko woon